asalaamaaleykum mbokk internet Leuz TV ginnaaw bi examen baccalauréat 2017 tàmbale damaloon nañ leen ci benn centre ngir laaj élèves yi seeni impression par rapport ak premier sujet yi. la a arabisano quoi. pour l'instant génn nañ si benn épreuve de français la ñu commencé si suba 8h ay 8 h ñu commencé épreuve bi alhamdulilah sant nañ yàlla nag épreuve yi pare na pour l'instant dañuy xaar épreuve la euh, géographie ak euh, taarix maanaam histoire si arab l Bon, pour l'instant, première matière, on a trouvé que c'est abordable, accessible par rapport ñu l'Union et tout ça. Bon, on espère li d'ici des yalla mel ni comme niñ débuté maa ngi def série l pour le moment dafa gum nañ anglais 3 heures de temps léegi histoire géographie bi lañuy xaar pour 4 heures quoi l instant bi anglais lañ def léegi dañ nekk pause pour xaar yeneen matières yi sujet anglais ah c'était pas mal par rapport ak l'année dernière sujet yi ma gis pour man daal c'était abordable. épreuve français bi daal dafa jafe si ñun trop ñun arabisants yi xam nga si commencement bi jànguñu français si commencement école arab yi eh, dañuy sose français am amuluñu foofu instant bi nag état bi dañu bugg eh, dugal français bi si état si maanaam si wàllum arab bi. Euh, loolu mooy suñu problème ñun génn nañ ba pare jànguñu français instant bi nag problème bi lool la épreuve dafa saf trop trop si ñun sax. épreuve bi moom franchement franchement baax na c'est abordable accessible non bon y a pas de difficulté de compréhension quoi on espère juste que dina am résultat bu baax et tout ça ak suite bu normal aussi. donc ren amul li li ñu jox jànguñu ko. <laughs> non non je ne crois pas surtout ak anglais moom je ne crois pas que dina am ay ay difficultés comme que jànguñu lii parce que anglais programme bi succès dafay suivre à chaque chaque année donc gisuma benn difficulté à ce que ñu naan que jànguñu lii jànguñu lii li ñuy espérer que mooy que mu bañ a am benn difficulté par rapport ak suite bi et tout ça ak fuite yi ñuy dégg et tout ça mu bañ a am benn difficulté mais sinon tout se déroule normalement et on espère que affaire yi continuer normalement aussi jusqu'à la fin première épreuve yi moom pour le moment sant yàlla bu baax dañu ñaan yàlla rek lépp continuer nii quoi ba keroog bés ba si ngoon rek xam nga ñu woo ñu ñun ñëpp. pour ñun bokk ñun suñ classe boobu mënuñu jox loo xamante ne ni dañ naan jànguñu ko parce que pare nañ suñu programme mais pour d'autres moom xam nga mënuma wax à leur place parce que xaw ma ndax ñoom terminé nañ seen programme wala affaire yooyu. pour les surveillants moom ça s'est bien passé parce que ñun suñu salle amoon nañ deux surveillants. waaw pare nañ suñu programme def nañ lépp lu ñu war a def. dañu toog rek xaar résultat bi rek suñu programme lépp nag dañuy réviser normal instant bi sax dañuy nekkoon si affaire bi si documents yi dañuy dis si gars yi dañuy tey noonu si documents yi nekkoon. Euh, macha allah surveillance bi normal la macha allah surveillance bi vraiment dañu kontaan si ñoom sax euh, jafuñu si ñun te affaire bi dafa normal. vu que amuñu grève amuñu benn perturbation terminé nañ suñu programme yëpp à temps instant bi ma macha allah on espère rek. que résultat yi dina baax bon surveillance bi c'était pas un peu difficile de baax nañ daa parce que ku ci nekk boo xamee li nga xamante ne mooy sa droit rek doo def erreur wala doo def li nga xamante ne waroo ko def moo tax surveillant bi amul benn problème te gisuñu aussi benn difficulté par rapport ak surveillant yi. amoon nañ ay prof yoo xam ne ils ont su être à la hauteur. sant yàlla bu baax nag ñun terminé woon nañ suñ programme moom macha allah. deux surveillants par salle la amoon mais tamit surveillant bi tarul woon quoi surveillance bi tarul woon surveillé nañ normalement amul woon benn dérangement ñun ñëpp nekkoon nañ ci jàmm affaire yi calmoon na daal waaw demee na naaj sax waaw lépp jàmm moom. stress moom mënul ñàkk vu que bon da ngay dem te doo xam fan ngay taxaw et tout ça stress mënul ñàkk. mais bon bi ñu la joxee épreuve yi et tout ça après di nga commencé soulager ak encouragement yi ak tout ça di nga di nga soulager wu bu baax bon di remercier au passage ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy encouragé parce que sa nous permet bon de de de nous défouler un peu. Monsieur Adam Sy, président du jury 1077. Ok, le jury est un jury mixte. Il est composé de de candidats. de la série S2 la série L2. Okay. Nous avons un total de 295 candidats pour la série L2 de la série L2, nous avons recensé pour les candidats de la série l Les épreuves ont démarré aujourd'hui vers les coups de 7, 8h30, quelque chose comme ça. On a pris un peu de retard. Bon, c'est le premier jour, c'est tout à fait normal. Bon, mais actuellement, tout s'est très bien, très bien passé. Euh, actuellement, on a même reçu les copies de l'épreuve de, de, de, de la matinée concernant la LV1 anglais. Il reste euh, juste ceux qui font Euh, les, la série scientifique parce que leur épreuve dure 4 heures. Okay. Mais actuellement, tout ce que je peux vous dire, c'est que tout se passe très très très bien. On n'a pas eu de problème avec les surveillants, ils sont venus à l'heure, etc. Ce qui posait tous juste un petit problème, c'était la répartition, mais tout est, tout est OK actuellement. Donc on... Oui, les conditions actuellement sont réunies pour que... les livrets sont en train, on est en train de récupérer les livrets. Tous les livrets ne sont pas encore parvenus, mais quand même, on a aussi eu pratiquement euh, plus de 50% des livrets. Donc tout se passe bien pour le moment. Quoi. Vraiment, on n'a pas eu de soucis. Leur comportement, c'est juste de ne pas, déranger et puis de rester concentré. parce que voilà, euh, après neuf mois de travail, je pense que c'est un moment déterminant. Il faudrait juste une petite concentration pour s'en sortir. Amadou Bousso, professeur de sciences physiques au lycée John Fitzgerald Kennedy. Voilà, donc euh, j'étais venu pour euh, récupérer un exemplaire du sujet des sciences physiques. Et je vois que c'est un sujet qui est, classique, qui est à la portée des, des, des candidats. le sujet qui est bien dosé, On a pris au milieu, au début à la fin. Parce que en chimie, on a donné acide alpha-aminé, chimie organique qui termine par cinétique chimique, ça tout le monde doit le faire, euh, RLC, et tout est dans le programme, et Donc c'est dans le programme, donc euh, vraiment abordable, c'est à la portée des candidats. vraiment bien préparés dans ce sens-là. donc euh, pour le moment aussi, l'examen se déroule Euh, normalement. On lance euh, un appel aussi pour, euh, pour le reste, pour le déroulement, qu'on qu soit plus aussi vigilant et plus rigoureux. Parce que le, le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Donc, c'est un diplôme qui est très sérieux, voilà, comme les autres. si wàllum état yi ñun dañuy jógee lu sori fi sori Matam la ñuy jógee ni ñëw ñun ñëpp ay waa Matam la ñu ñëkk ñun ñëpp ay waa Matam foofu amuñ ay centre dañu bëgg gars yi jàppale ñuy centre ñun dañuy jógee foofu ñëw fii sunu paas affaire bi day métti si ñun waa ay instant xam nga ay baa dool nañu nekk xam nga ñu noonu Sénégal xam nañu affaire boobu la joge foofu ñëw fii nga paas après nga loué noonu génne sa xaalis fekk dafa amoo benn yoon rek day décourage bàyyi affaire bi ñun dañuy dañuy ñaan état bi ñu jàppale sa affaire boobu ñu am foofu ay centre